بسم الله يكفيني الأقدار يا الله صبي بقى بي لبيك يا الله يا ما له الأمر يا من لا شريك له وزي ومال وأت لربك يا الله بسم الله اكفيني الأقدار يا الله سبي waa a ngoog waaye doxal ma wax ak yow waaye Ridwaan loo doo jàngatee lii waaw santati Serigne bi Ridwaan noo jàngatee lii waaw lii Moustapha mas musta xew du morom de waaw lii moom la ilaha illallah sama tay ju ne waaw tay jàkkal sama dëkk waaw mais Touba gépp gën nañ waaw Touba gépp gën barke nag yi rombe ñu naan waa lii jeexagul la ilaha illallah la waaye lii waaye jiw lii danaa xam lii kenn xamul lii cib lim dañoo xam lu mu waaye yii nag ndax duñu ay jinne nag yi rafet yii waaye yii a am nag eh. la lungul a rafet waay sax màggal laa laa ilaha illallah eh, waay xam ne sax lii mu sax ñu ngi jàkkaarloog jumaay Touba ji nag yaa ngoog de nag yi jeexagul amin waay nag yi jeexagul de laa ilaaha illallah jërëjëfati Serigne Saliou waay Ridwan ñu doxaat ñu doxaat ba ci kanam tey image tey image daaw la yaram barke Serigne Saliou laa ilaaha illallah jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou kenn du sëñ Béthio kenn du sëñ Béthio Thank you.

ñoom Pa Assane Ngok laa ilaha illallah kuréel xasaayit bi ñoom jërëjëf monsieur Pa Assane Diouf parce que Serigne Sall lii lañ ko yàgg a def yaram daw na dina jëfati Serigne Sall waaw maa la ko wax anniversaire Cheikh waaw leen góor Serigne Sall Mbaye waaw góor waaw leen góor salli wa إلينا كالقدم ci mbokku taal bi sono fi yi taw ni do mere mo leen ci taw Thank you. su ñu Sëriñ Tuubaa ak taalibe la digle yoon wi daa am kilifa ndax ku nekk topp ci sa kilifa di déglu ay ndigalam tey bàyyi tere buñ ko defee rek njuum te mën sa ak Texas nag së bi bàyyi na ne muy mel ñu war a doxe loolu ñu ngi ci maa ngi digal bokki taalibe yëpp ñu jàppaat seenu taalibe daan ma ko wax sunu taalibe bu ñu moytuwul dana dana wat nañ ko téye loola nag accident mooy lii nga doon sa yitte mooy xool nu ñu war a seetaate ba jubbantiwaat suñu bopp ba delloowaat sunu bopp ci sunu borom wax jaage noonu. jërëjëf waaw noonu daal laa jàpp ne bu ko defee rek danañu mel ni ñu war a bëgg li ñu bëgg. talibé yi yegg si nañu jannatu maxwa ñu ngi en direct fii ci pencu jannatu maxwa gi gis ngeen mbooloo mi ni ñu mel Touba gépp a génn ñëw fii ci jannatu maxwa teeru si nag yi maa la ko wax gis ngeen penc bi nu mel dañu may nag yi yegg dañu may nag yegg si laa illallah nag yi dugg nañ laa ilaaha illallah nag ya jaawal nañu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 jëlal gétt gi mu seesu koo gis jëlal gétt gi jëlal gétt gi laa ilaha illallah laa ilaha illallah nag yaa ngoog nag yaa ngoog nag yaa ngoog nag yaa ngoog jeexagul de nag yaa ngay jëw de nag yaa ngay jëw de lim bi xaw ma ko de nag yaa ngay jëw nag yaa ngay ñëw nag yaa ngay jëw nag yaa ngay jëw nag yaa ngay jëw nag yaa ngay jëw nag yaa ngay ñëw nag yaa ngay ñëw jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou gileem yaa ngoog gileem yaa ngoog tey jub jànnatu maxwa laa ilaha illallah jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Serigne ya Allahu akbar Serigne Saliou ndigal amoo morom Serigne Saliou ndigal amoo morom à deux à deux pas ah oui ambiance exceptionnelle ah oui vraiment ambiance exceptionnelle li ngeen seen muy ñëw bokk nag lee ca kanam dëgg yàlla premier parti deuxième partie baa ngi nii maa la ko wax laa ilaaha illallah ku mënul bawoloo yàq Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké mbokki talibé yi yéen a ngi seen nag yi yéen a ngi seen jumaa seen nag yi laa ilaaha illallah lii ci lim kenn mësu koo gis lii ci limu nag kenn mësu koo gis laa wax laa ilaaha illallah Touba gépp génn nañu Touba gépp génn nañu mbokki talibé yi ñaa ngi noonu accompagné nag yi ci dàq bi nit ngi génn ñi ngi ñaan seigne becc mbekté mi tambali na fenc touba gep ngi sorori ah, legi ñu yegg ci sorori wara jadd nak ah bu ñu wéré juma ji jëm janatu mahwa ما touba genn nañu la ilaha illallah la ilaha illallah ken mustagis Lamin Bay Lamin Bay lagi yaa non Lamin Bay ah. waaw ni de man la waaw la deena war yi xeetu nak waaw ni de sant Serigne salim Mbacké rek moy li dal am rek mo xewoon nga moy sëñ Béthio ak magal li soir sa rek sëriñ Saliou ndigal cuut ak magal gi la ilaha illallah ko gis xamni ni rek la ko sëñ Béthio daan defee kon nak xoolal ma waaxu barab bi xoolal ma waaxu barab sama yaram taw sama su ma gisee baro sama yaram taw sama ma gisee baro sama yaram taw la ilaha illallah don jambar wa xoolal ma yii nag authentique wa li li li man de li xawma limi lu authentique li dafa day war man li li li bii lim mom xawma lu non keman la wa li lu mu don ni la bay leeral bo gisee mu ñu xaw a guddee sax daanaka nag yi takku gi mu takku mo waru ñu guddee

xëy na la mbokki talibé yi gis ngeen nag yi gis ngeen nag yi ñu ngi toll rek Sourah ñu ngi toll foofu ci Sourah nit ñi génn nañ Touba gépp génn nañu Touba gépp génn nañu laa ilaha illallah cortège yaa nonu. noonu gaa ñaa ngoog waaw góore waay nonu. La ilaha illallah jërëjëfati Serigne Sall jaabal lañ de laa ilaha illallah nag yaa ngoog de nag sëñ Sall digal jur yaa ngi de laa ilaha illallah nag sëñ Sall digal jur yaa ngi noonu en direct Touba ñu ngi toll fi nga xam ne mooy Sourah naa la ko wax nag yaa ngoog Touba gépp génn nañu barke Sëriñ Touba nga ni nga ni gis texe la gis texe nag gis texe la gis texe la la ilaha illallah nee nag ko de du samay wax de ab murit bu daanu jël la ko wax de la ilaha illallah nag yaa ngoog barke Sëriñ Saliou la ilaha illallah jërëjëfati la ilaha illallah maa la wax waaw góor a murit maa la ko wax jërëjëfati Sëriñ Saliou jërëjëfati Sëriñ Saliou bokki julli ci mbokki talibi do ngi len di siaré di santat Serigne salim Mbacké Xaadimu rasoul ah di ñaanalaat Serigne Mountakha Mbacké yalla na fa yag tan di ko ñaanal Serigne Cheikh mom Serigne salim Mbacké di ñaanal Serigne salim ndigal Thioune mom Serigne Béthio Thioune yalla na fa yàgg tànd daaw da mbay ma ngi fegoon ak yow daawaati geej daw baren ñu santat Serigne salim no jangate li nak fimu ne ñi ngi en direct ci li nga xamni moy dakum nak yi nak yi jëm fele ci jannatu makhwa te pencum seriñ Béthio Thioune pencum sëñ Tall Ndigal Thioune ñu ngi toll nag fi mu ne fii ci Ndindi jàkkaarloo kër sëñ euh, sëñ Abdou Karim Mbacke borom Magal Akhlaq kon nag yii nag loo ci yëg waaw jërëjëf ànd ak ñoom jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Saliou amul morom Serigne Saliou amul morom da lay fekk fi nga nekk da lay fekk fa nga nekk di la defal di la defal di la teral di la teral te du la ko yëgal te du la ko yëgal jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou mu mel ne nag yaa ngi nii teewaluk Serigne Touba gaa ngi nii da mbay lii lan la teewaluk Serigne Touba gaa ngi nii da mbay lii lu mu doon teewaluk Serigne Touba gaa ngi nii yi xeeti nag yi rafet ki ànd ak Serigne Touba la ilaha illallah aw di buntam parce que barke Serigne Béthio. laa ilaaha illallah xoolal ma yi nag baax a baax a baax a baax. laa ilaaha illallah xoolal nag yi. laa ilaaha illallah rafet nañu. maa waaye lii fu mu jëm waaye Daouda Mbaye yii nag fu mu jëm. ci pencum sëñ Béthio ma. eh waay. ci borom eh, ndigal. borom ndigal amati na de. borom ndigal amati na de. bëgg lu baax na ndam borom a neex mooy. waaw njëriñ bu doon benn nag laa ilaha illallah xoolal nag benn nag day nag yaa ngay jaabal xoolal nag nag ña ngay romb kër sëñ Abdou Karim laa ilaha illallah Abdou Karim laa ilaha illallah laa ilaha illallah lii kenn mësu koo gis lii kenn mësu koo gis jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou laa ilaha illallah bismillah ikfinil أقدار يا الله سبيل بقاء أبي لبيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وزي وما وأك لبيك يا الله بسم الله اكفيني الأقدار يا الله سبيل